jekki woo nelawoo mhm. waxtu wu nekk yaa ngi dem yaa ngi dikk mhm. te kat waxoon naa ne yéen bii ñu la yem ca at yooyu yeenu génn ba fii nu toll nii ku ko xeeb bala nga sobente ko daa tigul ci sa kaw bopp loolu is gann la mhm. waaye saraxe nga sa der bii saraxe sa jëmmu ji fab sa lépp joyal ci sëñ Tuubaa bàyyee mbi defi ak sab der ak sa lépp ku la xam yaa nga ci lëla sëriñ bi digal ku la umpalee yaa nga sëriñ bi digal kon nag noo ngi ñaan nga yàgg fi lool